alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah alwaahid alahad alfard alsamad alladi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin عين رحمة ربانية البشير النذير خادم الحضرة القدسية وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى لقاء الله ورضي الله عن شيخنا وممدنا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني an xalifatihi wa waarisi sirrihi wa jaarihi mawlaana abi isxaaq cheikh ibrahim ibn alhaaji abdillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokki jullit ñëpp mbokki taalibe yi mbokki Medina maa ngi jiital xalifa bi di ko nuyu bu baax a baax di ko jaale li nga xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp ku nekk man ku nekk mën ko jaale sa morom ndax moom ñépp la fi nekk loon te ba muy man di dox ak tànkam def na ci lim man bi mu demee ba tëdd itam taxul mu bàyyi ah damay wax ne doomu aadama nag du doyal ci lu baax waaye yàlla may na ko dund bu gudd waaw léegi maa ngi xool carnet bi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Ibrahim bind seen juddu boo ko xoolee ak tey mu ci juróom at ak juróom ak ay weer loolu nag kenn ku nekk ci ñun yaa ngi doon mébé ndax mën nga ko am wala foo nooy def ba am ko kon nag moom mi ko am dañ koy ndokkeel rek te xam ne dafa jóge ci leer rek jëm ci leer ñu yaakaar ne bu demee baayam moo koy teeru moom lay dëkkat ndax ñoom ku leen bugg rek dëkk ak ñoom rawatina boo nekkee seen deret ba pare bëgg leen moo tax ñu ngi ko yaakaaral ay yaakaar yu rëy rëy ba lépp loo xam ne waroon na koo dis si ñun rek loolu dana ko oyofal waaye li ma njëkkee rek ñun ñépp ku ci nekk mën nga koo jaale sa moroom te itam ñu sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla sonalu ko ci dara même bi muy dem sax sonu ci ndax waajaay boo xam ne lépp ay fukki minute ak juróom la nga dem gannaaw boo dundee dund boo xam ne ci lislaam yàlla toppatul dara boo dundee dund boobu ci lislaam nga xam ne yàlla toppatul la dara nga xam ne juróom-ñetti fukki at ku ko xas am jar-jar yàlla nga ci kaw suuf yàlla toppatu la dara nga dem nag ba passé ko teg ci ay at yu limu ñu koy ndokkeel ci fam jëm di ndokkeel itam ñim fi ba gannaawam di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla uutu leen ci moom te uutu ko moom itam ci njaboot gi yëpp ndax taxawaay bu ràññeeku la taxawee woon ci mbokk yeeg taalibe yeeg njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ku nekk rek fa la war a teg teg na la fa fi la war a wàcce wàcce na la fa ah yàlla yombalal na ko dem yaakaar naa ne li des yëpp itam noonu la yombee ci kanamam te gis naa bàyyi seddal ko ci lettre bu mu bind Sidi Ali ne ko maa ngi lay gëñal ci yàlla ne kii ma la may ci saalihaat yi la bokk saalihaatun la ne ko te waxuma ko ngir maa ko jur waaye dama lay wax loo xam ne yow ci sa bopp bu ca kanamee da nga ko xamal sa bopp waaw ah loolu nag doy na seede waaw seede bàyyi boobu doy na seede kon ñu koy ñaanal lépp luñ ko yaakaara rek yàlla na fekk ci mbaax ak yàlla ga lu ëpp loolu hmm. ay njabootam ay sëtam yëpp ak doomam yi yàlla na yàlla wàcc ci ñoom barkeem te may dund ni dundam bi dund boo xam ne gudd na te lu baax rek la ku nekk bugg na ko yàlla ñu ko yàlla may ñun ñëpp waaw yàlla ñu yàlla wutu ci moom yàlla ko wutu ci ñun demam bi yàlla bu mu fekk benn na ci kanamam yàlla bu mu ko bàyyi itam ci gannaawam waaw ñu ngi jaale mboolem taalibe bàyyi nag fu ñu mën a nekk ci àddina ni ñuy jaale mboolem jullit ñi alamul islaam yi lépp ñu ngi leen di jaale ñu ci Sénégal ñu ci Gambie ñu ci Mauritanie comme ni ma ko waxee woon ci njàngam kaamel mi barki dem réew yooyu yëpp mën nañ leen koo jaale ñu koy jaale ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di xamal ñëpp nag képp ko xam ne itam amul yoon pour ñëw wutu nañ la fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kañ lañ ko war denc. waaw gannaaw suba àllarba ci gannaaw tàkkusaan lañ wax waaw bi ma demee ci xalifa bi daal wax nañ ba d'accord ci loolu. àllarba ci gannaaw tàkkusaan maanaam di h 30 yooyu waaw ko defee ñi nga xam ne jege nañ te mën a ñëw ñu mën a am bunt pour yegg si waaw. juróom-ñeent fukk juróom-ñett juróom-ñeent juróom-ñett ci milaad ci hijriya ci gàddaay yonent bi ndax bàyyi buy bind gàddaay gi lay bind du bind at mii nii bàyyi hijriya la bind waaye loolu la am ci hijriya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ak ay weer waaw waaye bu fekkee ne ci juddu Isaa bi la seet moom mu ngi juddoon 1924 waaw waaw